gudd kàddu yi ñu rek la ñu bàyyi ko ci fi nekk Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér ba taxawaay bu ma sëkk li nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci yoon bu suñu ko kattan ak lépp ko yëngu ko ndax xelum jullit yëpp a dal ci moom xelu teel yëpp a dal ci moom kon Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké ak imaam mi nga xam ne ñëpp xam nañu ndax surtout Serigne Touba ak Serigne Dame Abdourahmane Lo taxawaay itam li ko fi Serigne bi séentoon bu andi ko fi ñëpp xam ne matal na ko kon na ko yàlla yàgg taxawe ñëpp yàgg topp xam ne moo yore kàddu bi di fi jëw ñoom ca Dakar ak mboolem ko. moo itam ñu koy sant di ko gërëm ci taxawaayam ndax fàttali rek lay doon ndax liggéey bii bu demee ba agsi fii ñëpp xam nañ ci taxawaayam xam ci yitteem xam ci positifam ba yàlla def suñu ko am def li ci ëppoon ak kon moom itam ñu koy sant di gërëm taal bi yi topp ci ginnaaw wax ji nag du ndax dañuy sant bokk jur yi rek ak bokk taal bi rawatina fii àdduna tolloo ñun ñëpp maase xam wopp di xam suñu borom wàcc na ko ci kaw suuf muy balaa di mbas moo xam ne yàlla ko yàlla tëgg ndax ñëpp dem ba mu demee wàññi ñëpp ak woy fanam ci ñëpp gën a góorgóorlu ci sàmmonte li nga xam ne moo leen di aar di aar ñëpp ndax jàngoor ku ne ci yow war ngaa fexe bu ko wàll sama morom comme ñëw ci itam war ngaa fexe ba di ko waxtaanee ko loolu suñu borom ko santaane kon nag ñu ngi nuyu ñëpp di rafetlu nag mboolem bokk jullit yi ak bokk taalibe ndax jàkka ji wa anna al masajid jullit yëpp nag maase bi ñu maase bi maase ci xam ne jàkka ji néegu yàlla lépp lu ñuy askanale Sëriñ Tuubaa jullit yëpp ko bokk ndax Sëriñ bi loolu la dund loolu la waxee fir lii nag firnde li ci ne wóosi ko ko ñëpp wóosi ci woon xam ne xam ne néew yàlla ba tax mënoo fi xàmmee murid ak tijaan ak xaadim ak laayeen ak yeneen tarixa ci des yëpp ci ak ñi nga xam ne sa ay jullit lañ te askan wi ci tarixa bi lépp mooy li nga xam ne suñ borom santaan na xam ne ko ak ak xooxul muslim dem santaane ci jullit yëpp maas ci àdduna nekk benn ñu bokk di ci ko firnde kon nag bu jeexale foofu kàddu yi jox sëriñ ba koy fay bi nga xam ne war na ko jottali ci bokk taal bi jëme ci bokk jullit yi mu leeral ko ni mu ko war a waxee ginnaaw boo xam ne am na ci ci ki fi nekk sëriñ Tuubaa di ak Cheikh Mouhamadou di ñaan mu yàgg fi bokk taal bi bokk di ko والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سنتي أبو بكر بن النبي صلى الله عليه وسلم دي سرين بن بكر دي سنت سرين طالب سرين بن بكر di ko Mouhamadul Muntaqa Basir te ñaan yàlla yàlla yàggal taxawaayam may ko kattan liggéey bi mu liggéeyal lislaam ibnu Cheikh Abdoul Khadim Mbacké ibnu Serigne Touba mi nga moo yor kàddoom tey yor kàddu gi njabootu Serigne Touba bi di jël di UGF di Lensan Cicitu Serimbi dan Santri Cicitu Syekh Muhammad ini kami menunjukkan di cantik Serimbi ci liggéey bi nga xam ne na mu ko waxee ca njàlbeen ba tey ñoo ko ànd ànd ko àndin lu mu leen ko waxee woon ci yoonu bari mburi mujj nga xam ne ñu woon na fi ci weer yee ñu génn doon leen xamal tamit ni liggéey bi am na beneen fànn liggéey boo xam ne mooy li nga xam ne mooy mottali programme bi ñu waroon a def fii ci Masaalikul Jinaan muy institut islamique bu rëy bii ñu fi war a def defal ko Sëriñ Tuubaa ak li nga xam ne moo desoon ci liggéey bi ñu loo xam ne bii boobu ba léegi ñu ngi nekk ci ay waajtaay maanaam ay def li ñuy wax ay étude ay pré étude yoo xam ni bu ñu noppee bu jébbal lépp sëriñ bi rek bu neex yàlla ñu daal di koy tàmbali ndax moo nekkoon programme bi nga xam ne moo doon programme global nga xam ne mooy institut islamique de recherche Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ni jàkka ji benn la ci li nga xam ne nii mooy programme di tamit xam ni dañoo nekk ci watay di sendu magal gi nga xamni mom lañuy da ak mu nek ci ligelu Serigne Touba nga xamni ci première semaine du mois de octobre lay doon magal googu nag xamone ngeen ni tamit da daan am ay watay yo xamni dañ ko daan faral di def mu doon ay colloque wala mu doon ay symposium wala mu doon ay ay journée culturelle yoo xam ni dañ ko daan waajal màggal gi fii ci Ndakaaru di ko ko séenoo ba pare doo ko dem màggali Touba mu daje nag ren boo koy seet ni ko fi sëriñ bi waxee bi mu fi ñëwee ci ubbite gi ci mois de septembre le vingt sept septembre mo magal gi daanaka di dox seen diggante xam naa ni ci fukki fan lay doon te comme daf ñu joxoon ndigal ni at mu ne ñuy préparé ngir waajal magal gi nga xam ni mooy màggalu Sëriñ gi ñu def programme spécial ci bu weer bi teroo rek di benn fan ci weeru safar ñu tàmbali di ko waajal màggalu Tuubaa ci manifestation culturelle yu mel noonu ba ba ñuy dem Tuubaa ren nag mu nar a coïncider ci ndigalu sëriñ bi ak fii ci ndakaaru ay xew-xew yoo xam ni ñu bëgg a boole xew-xew yooyu yëpp comme nañ leen ko diggee woon ba ñuy ubbi jumaa ji mu nekk semaine culturelle lu ndakaaru boo xam ni ak mu ne dañ koy mu nekk semaine culturelle ba ba ñuy dem di màggali Tuuba at mii ku ne xam na ni màggalu Tuuba ci première dizaine tekkaatu mois de octobre lay do sëriñ bi jox ñu digal ni nañ fi def semaine culturelle bu yaatoo yaatoo yaatu ba nga xamni xew ko bi am bir Dakar mi ñaari guddi Dakar yu te ñu ko daan magal di tamit julli gi nga xamni gi mo moom julli won ci geej gi ñu diko magal ak li nga xamni moy 27 septembre nekk date boo xam ne bii date anniversaire ubbitik jumaay Masaalikul Jinaan la ñu bëgg boole xew ko yoyu yeb def ko ci ben semaine boo xam ne bii day doon semaine culturelle boo xam ne bu mag boo xam ne dañ koy waajal màggalu Touba bu ñu ko defee ba le vingt sept le vingt huit ñu doog a nag daal di waaj doog a dem Touba mu nekk xew-xew boo xam ne bii xew-xew bu rëy rëy rëy doon nga xam ni dañoo bëgg la nga xam ne nii amoon nañ ko ci ouverture bi nga xam ni moo doon ouverture Masalikul Jinaan bi ci ubbite gi daanaka na mu meloon ci mel na ak taaru ak na mu meloon ak pas-pas bi nga xam ne moom la taalibe yi amoon jullit yi amoon ko ñu daje fii def semaine culturelle boo xam ne bii dina am ay exposition yu mag a mag a mag dina am tamit ay conférence yu mag comme niñ ko defee woon bi ñuy def ouverture bi dina am tamit ay ay ay ay waxtaan yoo xam ne yi dañ koy waxtaan jëme ko ci li nga xam ne mooy yoon wi jëme ko ci li nga xam ne tamit mooy diine ji jëme ko ci li nga xam ne tamit mooy situation yi nga xam ni moo nekk dans le monde comme niñ koy faral di def rek nga xam ni dañ koy waajal nag mu nekk wàccaay woo xam ni waa Ndakaaru gépp ak li ko wër dañu fi ànd màggal ko def ko muy julli géej gi def ci tamit ñaari guddi Ndakaaru yi ak ubbite gi nga xam ne gi mooy ubbite gi Masaalikul Jinaan loolu daal mooy ndigal li nga xam ni tax tukkee woon na ci sëriñ bi tàbbi fii ci Cheikh Mouhamadou Bachir ñëw indil ba taxoon mu ni woon dinañu baaxe ñëw fii tey ci àjjuma ji julleen ñun indil ñu ñaanu sëriñ bi ñu tamit ci li nga xam ne lii mooy liggéey bi ñu ci li nga xam ne lii mooy àndandoo geeg bendandoo gi te xam ni ñun taalibe murit li ñu war mooy toog di déglu ndigal bu ndigal ñëwee rek ñu jëfe ko leneen waru ñu lu dul déglu ndigal ndigal li mu jóge ci ka ko war a joxe muy sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Murtada Murtada Muntaxa bu ñu ko joxee mu wàcc ci moom rot si ci ñun ñu daal di koy jëfee def ko ni nga xam ni nii moom mooy li ñu mooy jëfe ko ni ko sëriñ bi bëggee bu ñu ko defee ni ko sëriñ bi bëggee daal di am li nga xam ne lii moom la ku nekk bëgg ci taalibe muy ngërëmul sëriñ bi sëriñ bi nag waa Ndakaaru yii wax dëgg yàlla ameel nañ leen cant ameel naa leen ngërëm ma di la ko seedeel yow mi nga xam ni yaa ma ci seen ci seen kanam lépp loo xam ne jóge na fi yow jóge ci sëriñ bi bu ma leen ko waxee dañuy daal di ànd man def ko noo xam ne nii dina ëpp sama njor lii nga xam ne tamit mooy ndigal lu yees tàbbi fii e na nga ci rafet njort te nga ni sëriñ bi dinañ ko def ni mu ko bëggee nañu ñaanal ba sama borom dimbali ñu kàttanal ñu ba nga xam ne bii buñ ca eggee ñëpp dinañ maase xam ni la nga xam ne moo doon ndigal li jóge ci sëriñ bi matale nañ ko ndax ñu mën a am ngërëmam yow nag ñoom lay def beral sa cant bopp cant goo xam ne gii ñun ñëpp ñoo la ko yoreel kuy taalibe murid yoroon na la cant gi ndaxte nii nga nekkee ci yoon bi nekk tànku sëriñ bi nekk làmmiñam nekk bëtam day loo xam ne yombul waaye nag sa maam bi sëriñ Tuubaa moo la tànn ko liggéey yoral ba lépp dina ko yor ndaxte kat jiitu moo metti Jitu nak metti na waye amna pay pay gi nga xamni ku ma sa jitu ku ne ba def ko nang ko nañ la ko sante won yalla bu la loolu um yalla sa borom defal la muy pay go xamni gi fi mu yag lool ba nga xamni bi di nga ci ko defé no xamni ni ni nga ko bëggale ak ni ko sëriñ bi bëggee mbokk talibé yépp ñoo ngi massé di la gërëm di la sante di la ñaanal yalla yalla katanal la di la yàlla yàlla wéral la ñaanal yàlla yàlla yàggal la nga nekk ci suñu kanam dinu jottali ndigali sëriñ bi ñu koy jëfe ni nga xamee ni bi moom la ko sëriñ bi bëggee ndax boo ñu ko woyofalul woon dina jafe ndaxte ñun sëriñ bi rek la am ndigalam rek lañuy ñuy waaye ndigal loo ñu indi di nga ci jàpp ba daanaka dañuy tiim rek waaye du ñu yëg du ñu yëg giisaay bi loolu lépp nag sa mbaax na ak bëgg Serigne Touba ak bëgg a liggéeyal Serigne ak bëgg euh, euh, ndax yow li la ñor lépp mooy ndamul ndamul ndamul Serigne Touba rek kon bon maa ngi maase ak mbokk taalibe yi ndax Ndakaaru lépp ak yi nekk fépp sax di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na ko sa borom yàggal kàttanal ko yàlla may ko may ko may ko may ko lu mu bëgg a def mudah kalau sering sëriñ pak te ñu ànd ko moom ñoo di sant ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërë Oui, euh, nous rendons grâce à Dieu et ya, à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à notre guide, le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rasoul. Nous remercions le Khalif général des Mourides qui représente toute la communauté mouride, Cheikh Mohamed Muntaha, et à travers lui, nous rendons toute la grâce divine de nous avoir permis d'écouter ces recommandations et de nous permettre d'avoir toute la possibilité de les remplir comme il se doit. Nous saluons au passage son représentant ici présent, cher Mohamed Bachir, qui nous a amené les recommandations du Khalif et prions que Dieu lui donne une bonne santé, une très longue vie et l'encouragement sur sa démarche, sa démarche, sa dynamique permanente de veiller à la bonne marche de la communauté que nous partageons en commun, qui est la communauté mourite. Nous saluons au passage aussi tous les musulmans de tous bords, de toutes les contrées. Et avons le plaisir d'accueillir avec beaucoup de plaisir les instructions émanant du Khalif général des Mourides qui consistent à préparer pour le grand magasin de Touba, comme à l'accoutumée, une grande journée culturelle exceptionnellement cette année qui coïncide au premier anniversaire de l'ouverture de la grande mosquée Masali Koutinam. Auparavant, le Khalif nous a aussi instruit de tout faire pour terminer les autres travaux qui viennent en complément de cette mosquée, qui est un des éléments de l'Institut de recherche islamique chez Ahmed Bamba, à savoir l'Institut de recherche, à savoir à travers le musée d'exposition des œuvres et des reliques de chez Ahmed Bamba, et la finition de quelques travaux qui restent pour l'achèvement des travaux de la Grande Mosquée. Et cette année, exceptionnellement, Cheikh Mohamed Oubashir nous a amené les instructions du Khalif sur le programme de la préparation du Grand Magal de Touba que nous faisons chaque année. Mais comme je l'ai dit tantôt, exceptionnellement, cette année, la préparation du matin coïncide avec le premier anniversaire de l'ouverture de la mosquée Kudina. Et nous voulons, d'ailleurs dans un autre entretien certainement beaucoup plus élargi, avec toutes les composantes de ces manifestations, à savoir le courrier des deux rakas, des deux nuits de Dakar et le courriel des deux rakas qui euh, commémore la prière de Cheikh Ahmed Bamba sur l'océan et l'ouverture de la grande mosquée pour en faire une grande semaine culturelle, certainement qui débutera entre le 19 du mois de septembre jusqu'au 28 qui coïncide avec l'ouverture de qui, coïncide avec l'anniversaire de l'ouverture de la mosquée Moussali Jinan. C'est ça ces instructions que Cheikh Mahmoud Bachir est venu nous transmettre et que j'ai eu l'honneur de vous annoncer. Je pense que à la sortie de, cette, de ce petit point de presse, nous allons nous, nous allons nous atteler à convoquer une très grande réunion avec tous les composants de cette organisation, à savoir, comme je l'ai dit tantôt, les autres daïras, plus les bonnes volontés que nous allons copter pour en faire en quelque sorte un très grand comité d'organisation. Et nous appelons toute la communauté musulmane sans distinction, Mourid Yann Khadir, comme l'a dit tout à l'heure Cheikh Mahmoud Bachir, pour venir en communion avec nous pour en faire cette année une très grande réussite et que tous les ans, Inch'Allah, que nous allons faire pour commémorer le premier anniversaire de l'ouverture de la grande mosquée mondiale. En résumé, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure à Wolof, et que je pense que vous serez avertis, vous de la presse, la date à laquelle nous allons convoquer cette très grande réunion pour commencer à préparer cette semaine culturelle. جاء مانع مسقات زمن عباد من يقبل ما شاء لمن شاء زمن